mooy lan fexe leen ñoom ñu nekk benn muy groupement parce que man nga nañu groupement parce que yooyu ñoo fi amoon loolu moo waral bu ñu war laajee keroog seen turu groupement ñu jox ñu turu loolu moo tax ñu ne dañu leen di defal groupement du groupement féminin dañ leen di defar groupement intérêt économique nga xam ne entreprise la kon lan moo des ngeen jëmal ko dem utal ko kay tolloo incha nañ ci nekk pour ngeen xam lan moo waral groupement boobu taxaw soxna ba ngeen fa jógee na ngeen ut na ngeen defal sen bureau ñu deglu s'il te plaît ba ngeen fa jógee na ngeen ut bureau permit am président trésorier ak secrétaire parce que lolu moy permettre ma leen outal kayit lolu lepp nag ah ci mission bu nga xam dañ ko nek parce que buñu ñu dimanche passé ñu ko tuddé won bogo nga xam ne vraiment ay jàmbaar yu nekk am ay jigéen yu jàmbaar yi ñoo fa nekk tey formateur bi nu mu yondoo fii dimanche bi passé noonu la yëndoo baabaax kon lii nekkul la nga xam fii rek lañ koy def loolu bu amee di sant bu baax délégation bu ànd ak ki ne nga xamante ne mooy jareetu seen dëkk Mbomboy ak euh, suñu mama faatu Fatou Gueye dëkk dëb dëb daal doon ay ja ay femmes yu jàmbaare doon samay jigéen ñuy ànd depuis 2009 lii nii ñu man bu di koy def comme yéen lañu meloon xamuñ ci woon te dara te buñ koy def formation fekku leen à Babac ñoom dañoo déplacé di paas sag yu dem cees di fay kenn ku ne si ñoom dañ la fayal xaalis wu bëri pour nga mën ko parce tey bu njëkk. bu ngeen demoon ngolaa di dem ay formateurs yi nga xam ne dañuy jóge cees wala Ndakaaru ñoo doon ñëw di leen forme ñoo doon ne pourquoi pas doomu gox yi jóg doon ay formateur di jàngal te li ngeen jàng ni ngeen bañ koo xeeb comme nu ko soxna faatu wax vraiment euh, lu mu fi def kii di leen ñaan rek soxna Fatou bés bu ñu jëlee télévision nar ko defaat ah na ngeen xool kenn ci yéen ku mën a ñëw assister waat leen. parce que waxuma jóge fii mu dem mu fay parce que souvent formation yi loolu moo koy yàq te lu fii nekk lu tuuti tuuti bu calculé woon soixante quinze minutes tuuti moo ci manqué lu ci dem kon loolu na ngeen ko jàpp bu baax seen loxo projet bi nag day continuer lii ci volet formation la ñu nekk ñu ngi war a dem ci volet financement te groupement bu ñu formé wul waaw bu ñu la formé nga bay affaire boobu daanu ñun duñ fa dugal suñu xaalis parce que souvent lu leen di si joxaat ci financement yi ngeen di def da gis ay benn programme financement am ngeen dem leb si xaalis ñiy jël xaalis bi ñi dugal ko ci njël yi ñi njël dem euh, dugal ko ci famille bi léegi famille bi doon problème to xaalis bu nga leb waroo koo lekk di nga ci war a liggéey parce que moo lay permettre boo ëllëgee boo fayee xaalis bi bu fay jotee nga mën a fay te doo am benn problème ñu nag du ñu finance kenn ku nga xam ne amoo ci loo yëngu kon lii soxna na ngeen ko téye bu baax a baax. Fatkine ak ñi nek ay jam ki eh, jambaru jobas nañ leen gëna gungé to Fatkine dama leen koy ñaan jariatu ngeen gan leen gungé bu baaxa baax parce que bu ñu jégué ci formation yi def ni ñu ngi wara dem ci sereria ñu ngi wara dem ci transformation furi ñu ngi wara dem ci transformation leju ki leju ko lool da ngeen di gol mais li su fay amé fay ñun duñ ci dugalaat suñu xaaliss duñ ci dugalaat suñu suñu suñu suñu doole kon léegi rek lañu bëgg ngeen ngeen gor di remercier nag ma sœur astu vraiment doon ku nga xamante man amu fayam parce que rusuloowu ma bu ñu demee SPR Abibou bu du jam ñaay da ngay foog ne moom moom ministère bi ba ne bu muy liggéey bu taateese day am fayit te loolu peut yar bu ko param yar moom rek moo tax formation bu ñu ko nee tëpp jo mu bokk si ju nga xamante ne mooy mouvement de l'espoir noto Diobass bu ñu ne mouvement de l'espoir noto Diobass nag ay ndaw yi nekk Diobass ñoo ko porté bu ñu damay ñëw ñoom ñooy def 100 francs 100 francs ah kon nañ jënd li to sa yi wote jotté di ngeen gis ku dul astu di ngeen gis keneen ak keneen fokk na sama mbokku tuklé ma ngi dem Mamadou sila xam ngeen ko bu baax dimanche passé rek ñoo kon falé jour bu mu ñew fi ni dimanche matin bu ñew fi di jaale diggante nañu téléphone mom mu ngi ci programme bi kon lool ñu nga xam ne seen doomi ñoo tok porté mouvement d'espoir de notre Diobass di leen jappalé loolu nak mënuñ ko def te remercier suñu suñu kilifa kilifa communal

demoon ngeen fa nag formation yani demoon ngeen fa foog na amatul ñaar wala amatul ñetti yoon kon lii ñëw fekk si leen seen biir kee nañ ko texe seen juróom-ñaari loxo bu ngeen di seetaanaat tuuti ci kanam di ngeen ko gis nu ñu ko ñëwee ci yéen ñi di ngeen gis ay yeneen village ñu gën a fallu nag ñooy gën a dem ci kanam parce que lu ngeen def nii waxuma ngeen jaay ko mais yéen yéen a koy jënd seen bopp te foog naa moom foofu lay gën a yomb si seen biir te xaalis bu fay gën encore yéen lay delluwaat parce que développement foofu la ñuy yomb kon na ngeen góorgóorlu bu baakha baax vraiment la la pré di ñaan bu baax euh, ñaanal oxy group bi nga xam ñoy formateur yi nga xamantene vraiment ño nek di teuf tourner bu ñu ñu ngi wara dem ci yeneen jour yi nga xam ay mbomboy euh, jungaan lu mel tepp dal yoy inshallah nañ fa dem ko na ngeen fexé ngeen len bu baakha baax. man lépp lu nga xamante mën naa ko def pour ngeen mën a dem kanam naa ci ànd ak xale yi n'est-ce pas doon oto Jobaas ñu mën ci avance incha allah rabi di jégal a ñëpp merci beaucoup. Jobaas